bismil ilaahi werakaanu bamba njamee ngi diitu jow pakeem cëbal ba bismil ilaahi werakaanu bamba njamee ngi diitu jow pakeem cëbal ba ku lab ci géej mooli di xeeñ sa mboor ma ku dee ci jiiri gaay sangi njoor ma ku lab ci géej mooli di xeeñ sa ngoor ku dee ci jéeri gaaye sange njoor ma bamba di géej murit yi ñoo di jën yaa lu dee ci géej loola du muurum tan yaa bamba di géej murit yi ñoo di jën yaa lu dee ci géej loola du muurum tan yaa murit du gis mu nakiir ak ji wa xabiir xam ko doy na nguura murit du gis mu nakiir ak nakiira ji wa xam ko doy na nguura njamee moon bi xuus ci géeji bamba di wane yoon wa gaay jàllee komba moon bi xuus ci géeji bamba di wane yoon wa gaay jàllee ndax ku mënul ndox te taxaw fa tamba lii pake ñu jàllal fab sa yan ba gaaya seeni ruudu faatoo seeni yaram du ràpp ñoo ko yaatoo xam gaaya seeni ruudu faatoo seeni yaram du ràpp ñoo ko soo ko gëmul jàngal wala taquloo ba dem ca axyaa um de kon nga wóoloo te gaayu baax ya xam ne leen te way dootuñu yeewu abadan ba xëy buur waxal bu kaawuluulu teg ala saadaati la bamba wax ca way wa bul sakkaati waxal bu kaawuluulu teg ala saadaati la bamba wax ca way bul sakkaati xeraw te ñëw nu xawtoo ngaaka ba daanu na ci digg te yow lu leen te ñëw nu xaw koo ngaa kaa bàjjo ba daanu na ci digg géej ga wallaay sëriñ ma sàmba keroog ba nii àndandoo gi ñu àndandoo ñëw ci sa kanam day dara waralu ko loolu ak cofeel ngir jëmmi sëñ Tuubaa ji te xam nañ ni am na lu la soxna Aminta taamar waxoon ni képp ku la sopp danañ ko dugal ci dara jibooy Rasulullaahi sallallaahu alayhi wa ak jibooy sëñ Tuubaa juy sëñ ma sàmba loolu lañ bëgg nga dugal na ci ndax lépp loo xam ne indi nañ ko fii asakay suñu yéene la dafa ñaanoon jaam bi dafa ñaanoon dafa ñaan ndax ab jaam day ñaan nee na ak cant la booba sama digganteeg moom mu ne la maa ngi ñaan ku ànd yow ak ku la sot sëriñ Tuubaa def leen ci jibaam nee na ab jaam day ñaan moo tax soxna si daa ñaanoon kon nag ñaan googu yàlla na suñu borom dugal ci biir sant nan bu baax a baax a baax sëriñ sàmbake do xeja ki seen du ay mbokkam jaambur ku ñëw mu digal teral laa nga jublu boroomam ku ko sopp nel ni say baaraam laasan ba sëriñ sam laasan ba nasrun minallahi da di kuréel boo xamante depuis 2002 mu ngi existé te mu ngi liggéey te liggéey bi li ko tax tax a jóg yëpp mooy liggéeyal sëriñ Touba jaarale ko ci jëmm ji nekk ci biir bi ñu doon siyaare muy sëñ Maam Mor ma Samba ànd koog nag sëriñ Sam Mbàkke la Zamba mi nga xam ni moom mooy kilifay liggéey bi kon nag lañuy sant sunu borom bu baax liggéey bi yaatu na mboolem taalibe yi fi nekk ñu ngi ko ànd ak ñoom kon nag tey jii la njëkk a ñëw daaru Karim te fas yéene di fi fekk sëriñ bi téeméeri at ñu ngi koy ñaanal mu gudd fan lool ñu yàgg ko fee fekk ñaar fukkeel bi yoon mu ngi nii ñuy indi ndab yi ah bi yoon nag dafa dajeek alxamisu sëñ ma Sàmba Ja mu dajeek tamit xalifaatu sëñ ma Mor ma Sàmba kon yooyu daje yëpp dañoo jàpp ne du hasard kon nag yàlla nañ liggéey bi dugg ci ngërëmal sëriñ Mamor ñu ànd am tamit ngërëmu sëñ ma Massamba. yow gën a fedd suñu laxasaay ndax euh, bala ñoo ñaanal sëriñ Mamor dañuy njëkk a ñaanal sëriñ Sam ñu àndal ndax wax dëgg yàlla a ah, dañoo wax ni néeg bu ne dañ koy jaaree ca buntu ba. te yàlla dogal muy jëmm joo xam ne liggéeyal sëñ Tuubaa rek ko ñor ni ko sëñ Alpha waxee léegi ñaar fukki at du ñaar fukki fan te ñaar fukki at ngi yoo xam ne ñi ngi ànd ak moom di liggéeyal sëriñ Tuubaa di ko jaarale ci atub Cheikh Massamba ak jëmmam ji nga xam ne Cheikh Ibra Fall lay roy ci doxin yàlla dogal ñu ko daan yet sëñ mamoor ren beneen yëg-yëg bi ñu am mooy lañ ko daan yët ren sëñ Massamba lañ ko loolu yaakaar naa doy na sëkk ab yëg-yëg bi ñu ñëwee it moo nu yitte joo xam ne moom sëñ bi li muy li muy xat-xat te ku ne xam na sëñ Mamor aw doxinam may na nu yitte yaatal nanu wax benn baat boo xam ni yaakaar naa mën nañ ko yóbbuloo ba dewen tey it jërut dolli waat mooy soxna Aminta Amar waajuram ku ne xam na ni ci loxoy Seexul Xadim la njëkk ko woon a jaar moo wax ni da ko doon gërëm di ko gërëm ba mu jaa mu ko maa ngi ñaan bi ma ne eh, soxna Aminta Amar daa wax dañu ma ab julit day ñaan soxna si daa ñaanoon ni maa ngi ñaan képp koo xam ne sopp na la mu dugg ci jubooy Seexul Xadim Seexul Xadim na yaakaar naa kum fat doo fanaan biti kon yàlla nu Seexul Xadim fat ay ñaanal ndaw yi ñu àndal wax dëgg yàlla lii ngeen def rey na trop sëñ Mamour ko xool xam ne ab xolam sedd yàlla na nu suñ borom jàppale defal nu fan gudd ak wér gu jox nu ay milliards yoo xamante ni dana man a ànd ak suñu sang bii lépp lu mu jox ñu dagg te ñaan daje ci tawfeex sëñ Touba. li may tënkee samay kàddu rek mooy ci ñaar benn bi doomi sëñ Touba ko wax mu Cheikh Mouhamadoul Fadal mhm. koo bind bi sëñ Moussa Ka ko wax ñaar yooyu nag. bi ma koy ñettee ñetteele mooy waxi sëñ Muntaxa war naa tax murit bu ne xam ne sëñ Masamba joxoñub sëñ Tuubaa la defarug sëñ Tuubaa gu raxul dara sëñ Fallou dafa wax ne Masamba kaana mu fiidal mu wa mun jil mustaxiisi isaaman naasu qad qaxatoo dafa wax ne ma Masamba bu bekkoor amee ba nit ñi jaaxle nee na ku dajeeg Cheikh Masamba boo waxul sax bu gisee sa bët xonq dana la jox loo xam ne yow boo demee da ngay séddale di maye waaye nee na tabam googu nag xàmmeewu ci kim mii nag ki muy doog gis tey ñi defee na tab gi ci alal la yam sëñ Fallou ne noonu mu tabee woon ci alal nii la tabee woon ci baatin bi ko sëñ Touba soloon ba mu fees noonu la ci tabee woon di ko maye kon kooku mooy ma Massamba ba ca topp sëñ Moussa Ka moom ci wolof la wax. dafa wax sëñ ma sàmba ak tabeem ci saa yi rek baatin ngeen lu baax wala fal bi dafa wax ne bàccey garab gu lew lewet te meññ te gaaw a ñor tey tabbi far ne gàññi hmm? garab gu lew te lewet te meññ te gaaw a ñor tey tabbi mooy bala ngaa watt sax mu daanu far ne gàññi sëñ Moussa Ka loolu la wax nee na tabeeg sëñ Massamba noonu la meloon bala ngaa laaj mu jox la misaal ko ci garab ne bàccee garab gu lew lewet te meññ te gaaw a ñor tey tàbbi far ne gàññ nee na ku dem keram ronu ko for ay junni kon googu garab wuti naa garab yi de nee na ku dem ca ker ga ronu ko for ay junni nee na ku yéeg ca kaw nag bàcc ko am ñoo yónni mooy ku ko liggéeyal bu la gërëmee mbooloo topp la soo ñëwee ci wetamit ngir am loo bëgg ay junni la lay jox te boobu ay junni mooy ay million sëñ Moussa Ka wax loolu ba mooy ñaareele waxi sëñ Moussa Ka mooy dafa wax ne masoon na ma tawat fa Daaru Rahman mu def sama docteur ba teema faatu masoon na ma tawat fa Daaru Rahman mu defal ma xar baax yoo xam ne doy na kiimaan booba damaa woppoon ba xaw caa faatu mu def sama docteur ba teema faatu moom sëñ Moussa Ka wax de nee ci benn kaas warga la ma saafara billahi bàccee mbër te mët la kaafara loolu mooy baatin bi sëñ Fallou wax ne sëñ Massamba tabe woon na ci sëñ Moussa Ka ko wax li mu ko defal ba may daaneele nag mooy waxe sëñ Muntaxa mi yàlla na fi yàgg te ak sunu kilifa gii di sunu bunt di sëriñ Mamor. sëñ Muntaxa novembre 2017 la woote bisu xasida Daarul noonu booba xalifa sëñ Basiiru la ba ñu yendoo ba ngoon mu def bernde yam def ñu yendoo jàng alxuraan xasida moo waxal boppam ne dafa am lu yàgg ne ci sama xol ma yàgg koo bëgg te loola mooy lan bëgg njukkal sëriñ Masamba looloo tax ma woote bis bii te xam naa ne noonu la ko waxee xam naa ne ku yaakaar sëñ Tuubaa amel nga ko njukkal ndax taxawaay bi mu taxawoon ci sëñ Tuubaa kon nag ku am dégg-dégg toppal joxoñ boobu rek novembre 2017 la ko def décembre janvier 2018 sëñ Tuubaa ràng ko médaille bi yàlla na yàgg loolu junj la doy na borom xel kon njukkal Cheikh sàmba ndegam moom mii di sëtu sëñ di borom xam-xam di jaamu ko ci yàlla di nitu yàlla sopp mag ñëpp nag bëgg ñëpp ñu toppoon sëñ Tuubaa waaye moo wax lii ci ma Massamba jëf ko ba pare joxoñ ko nit ñi kon ku am xel jéem a la dab bànneexub sëñ Tuubaa ci sëñ ma Massamba loo am ci sëñ Tuubaa boo ci boolee dab bànneexam ci sëñ Massamba mm. la nga am sëñ Tuubaa dana yokk ndax sëñ Massamba moom nu ko waay jàppeek nu ko waay def rek sëñ Tuubaa la dëgg la kon sëñ Muntaxa loolu la xam nun ñii fi dajet yëpp ci loolu lañ ànd fi ne mbooloo mi ànd kër gu ne ngi ci yoonu murit kër gu ne ci te it kenn ku ci ne la ko war fam ne ma ngi koy def waaye ñoom dañoo am tawféex yi dafa mel ne ñoom laataa sëñ taxaa di wax loolu vingt ans ci ginnaaw ñoom topp nañ joxoñ boobu donc ñoom vingt ans ci ginnaaw ñu ngi topp joxoñ boobu ba mooy vingtième année bi ñuy def lii kon bi mun taxaa waxee loolu ñoom seen xol sedd na ndax fekkoon na leen ci loolu waaye da a gën a ñaaxaat li sëñ Xaadim wax rek lenn rek moo nu fi indi mhm. cofeel gi fi indi ñëpp moo nu fi indi te yàlla tax ak sëriñ Tuubaa ak sëñ Masamba cofeel googu nag bu dëggoo mën naa may lu ne ci murit ndax sarti murit saadix ba ci jiitu sa sëñ Tuubaa wax ko nee na mooy asidiqu fi mahabbati cheikh sopp sëriñ te dëggal ca nee na mooy sart bi jiitu sarti murit saadix bu amee yi ci des yëpp day yomb te ñii taxaw ñëpp ak ña toog ca kër gi di toppatoo xéewalee seen xol yi sëñ Tuubaa ngi ci Cheikh Massamba ngi ci sëñ Mamoor a ngi ci kon nag kàddu yi dama koy daanee foofu rek bis bi daal bis la boo xam ne ku am na loola fa ku ne am na loo bëgg di ko wut si yàlla na ñëpp am li ñuy wut te suñ kilifa gi yàgg fi te weer lool ba jumaa ji mu àggale ko julli ko at yu yàgg nu ànd kook moom mu naal yeneen naal àggale ko naal yeneen àggale ko ci barke Cheikhul Khadim te ma daanee la nag genn kàddu da ngeen dem ci internet bi xool ko bi mu toogee di xalifa weer matu ko la ànd ak njabootu sëñ Massamba dem jaayanteeg sëñ Muntaxa keroog bi ñu àggee sëñ Muntaxa da ko bëgg xëcc mu toog ci kaw mu gaaw baras si ko toog ci suuf sëñ Muntaxa jàpp mboo mu ne ko déedéet xalaatuma ko la woon ci sëñ Tuubaa ak sëñ Masamba rek sëñ Muntaxa daal di ree bañ jotalee kaddu yaak addiye ba noppi sëñ muntaxaa bi mu jëlee kaddu wax ja li ma ciy jël ci wax ji ngeen dem ci internet xool ko dafa wax ne sëñ Mamour mii nag moom ba ma ko xamee rek laa ko bëggoon ndax damaa gisoon sëñ Basiru sama waajur bëgg ko def ko rakam ma bëgg ko ngir loolu waaye ba ma jaxasoo moom nag gis naa ci moom lu tax ma gën koo bëgg dem leen ci YouTube bi ngeen xool